jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte ànd ak comme ni ñu koy defee rek ci patrouille yi nga xam ne dèjà tàmbali nañu ko euh, ànd ak ñi nga xam ne rek ñoo di ndaw yi euh, takk der yi nga xam ne ñoo nekkee boobaak léegi ñu tàmbali ko euh, di ko wéyal nag ñu ànd ak ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci guy mbind ngir fas yéene ànd ak moom ci patrouille xam ngeen ne bi 20 heures jotee rek la ñu koy tàmbali ñu fas yéene ko dund ànd ko yéen ci vingt 24actu tey nag ñu nekk fii ci rond point Daara Jolof ngir tas dem ci arrière artère yi xam ne euh, ñoom ñoo nekkee ci Touba donc fa yéene dugg ànd ak ndaw yi éléments yi kon da ngeen ñuy topp rek ñu ànd a yéen ceex ñu dem euh, dugg euh, li nga xam ne rek moom moo di patrouille bi ñu daal di koy wéyal teg ay éléments comme niñ leen koy waxee suñu briefing mooy am na ñoo xamante ne toujours euh, dañu dugal seen bopp ne feebar bi amul mais terewul lii suñ devoir ñu di ko def liñ leen di yëgal itam mooy ñu éviter violence inutile et toujours que ñuy rendre compte tel quelle soit la situation ñu rendre compte à temps nit ñi nag des fois nous some la pour di leen informer sensibiliser leen wan leen ne voilà lii ak lii mooy bitu suñ mission wala mooy bitu ñëw toog fii ba heure bii ba six heures du matin waaw mooy nit ñi circuler ak oto yi nga xamante ne aussi ñu ngi ci li dem ci problème mu euh, autorisation bi ñu ngi ko doon wax parce que am na décret bu ci génn donc normalement à partir de vingt heures ci la autorisation yooyu di jeex tey jeudi à vingt heures moo tax ma ne ko léegi na ci euh, bàyyi xel waaw na vigilant ci côté boobu aussi autorisation bi aussi nga xool li ci def parce que des fois euh, gis nañ ci yoo xamante ne ay trafic lay doon da ngay gis koo xamante ne daf ciy def tour du ci def numéro permis du ci def benn lii te donc loolu soo ko seetloo c'est pas valable c'est pas réglementaire waaw donc élément yaa ngi fii mooy ah sëñ bi gerte la moom. sëñ bi gerte la ah. waaye ubbi ubbi la sant bi la sant. Modou Kane di baax. waaw kay. gis nga moom laa dem bi nga ji mi ngi wax Thank you. sama pare sama pare nga lu tax nga di ko woo loolu eh. dama ko dama ko ne ko amel na bu moto bi neen danoon jëlee ñëw. commandant kii rek ana borom boutique bi. ah waaw waaw tëj ko kay tëj ko da ngay gis waa Jokalante nii yëkkati bëri tamit yëkkati. yëkkati bëri tamit yëkkati. tëj ko woo de. jël leen ko ah. waaw waaw waaw ma sa carte d'identité ma ko. waaw yéen seen moo tax mu wàcce ko. depuis depuis hier ba léegi dañuy dañuy réglé bu 20 di réglé. Ah, waaw waaw sa carte d'identité. génne carte bi. looy bi. boutique bi réglé comme bu ñu wàccee bu ñu nii. damay wàccee mu tax ay chaque année damay bu heure bi jotee damay inventaire inventaire damay inventaire bu may inventaire vingt heures bu jotee ma wàccee samay buntu nekk sama biir kër di di régler génn soo ma euh, non tëj na non non non bu mu wàccee man moom heure su ma su ma demee bay tëdd bay pare laa jël sama xoom rek koo xoom bi mais nag tëj naa depuis vingt bi vingt heures jotee ndax bu dul dara man sénégalais laa patriote laa li ma war a li ma sama yoon may xam naa ko voilà mais boo tëjee fii nga tëj sa boutique bi. ku toll fële du xam ne boutique bi ubbi na mais ñun biñ tollee fële lañ gis xam ne boutique bi. ah non mais nag attends. non nga tëj bi non mais fii nag xam nga néew ba néew dafa tàng bu boo boo fermé buntu bi nii. benn benn air du ñëw. moo tax ñu bàyyi buntu bi nii pour pour am élargi. mais ku fiy romb seen bi nga may dugg waaw. mag. man ak sama mag bu góor ñoo ko def diggante ci biir kër man ak sama waaw xanaa xamoon lu benn dëkk ci biir jaala ah doo déedéet c'est supprimé waaw yow kay yow li données stratégiques donc moo tax chaque fois dañuy imposer éléments yi pour ñu teel a ñëw maîtriser secteur bi donc la preuve keroog jàpp nañ fi koo xam ne si dafa dem dajji butigu jàmbur sàcc ay kii donc yor yàpp ko ci charette sàcc six sacs suukar yàpp ko ci charette bu ñëwee éléments yi ñoo taal oto dàqante dàqanteeg moom mu sànni saaku suukar yi éléments yi dàq comme charette la yoroon te éléments yi oto yi ñor am na secteur yoo xam ne mënuñu fa dugg roq yoo xam ne mënuñu fa dugg mais quand même mu daal di rëcc mais mujj nañ jàpp suukar yi bu weesoo loolu aussi damay apporter benn éclaircissement ci autorisation yi jusqu'à présent ñun kenn waxuñu ni préfet dana yokk autorisation yi wala nangam sangam dañ ñu wax ne autorisation yi à partir di à vingt heures benn autorisation dootul valable donc ñun suñuy kilifa loolu la ñuy wax beneen autorisation valable tout ba ba ñuy joxaat yeneen instruction donc ci loolu la ñuy wéyee donc oto bu ñu ci dajee moom laa doon wax éléments yi oto bu ñu dajal mu yor autorisation nañ jël pièces yëpp afférentes à la conduite ñu buub yëpp invité le chauffeur a ramener le véhicule au commissariat ñu immobiliser ko fa ñun ñu xool le reste nan lañ ciy doxale mais jusqu'à présent jotaguñu benn kayit wala benn wax joo xam ni kilifa yi nee nañ ñu oto yiy ñëw yor autorisation ngeen bàyyi leen ñu dem non non ñu circuler non non jotaguñu. ak autorisation bi dëkk bu mu mën a jógee tamit bu mu mën a jógee dañ koy immobiliser. Mhm. dañ koy immobiliser. Mhm. voilà donc moom laa doon amoon benn kii bu ma doon leeral. Ah, 24 actu comme niñ leen ko waxee woon sànq rek lépp rek ak waa euh, li nga xam ne moom moo di couvre-feu ci nekk rek fekk sa biir kër mais nag dafa mel ne nemmeeku nañ ay cas yu yoo xamante ni ñooñu lépp rek ngir ñàkk respecté li nga xam ne rek moom moom fi tëral muy 20 nañu fekk seen buntu kër am na si ñoo xam ne dañ leen a jàpp fekk leen seen buntu kër waaye terewul bi ñu wëree ba ñëwaat ci commissariat bu guy mbind fekk nañ fi ay boroomi saret ñoo xamante ni lépp ngir ñàkk euh, méngoo ak li nga xam ne moom moom lañ fi tëral ak yoo xamante ni dañuy dem sans autorisation ndax même bu dul loo sax comme que joxe nañ ko euh, yaakaar naa vingt heures kenn ku ci nekk na a tax nit ñi gën a sàmmonteeg euh, ndigal li nga xamante ni tëral nañ ko fii fekk nañ fi ay borom oto yoo xamante ni dañ a teg loxo ak benn koo xamante ni mën nañ ne benn fondation bu mag la jiite si réew mi jarul sax ñuy tudd turam moom tamit bi ñu ko arrêté wax na ne li nga xam ne moom mooy permis ak euh, lépp lépp loo xam ne mën nañ ne war na ko mën a borom oto war na ko mën a yor muy fii ne kii kat euh, mi ngi dox si yoon dafa wax ne moom daf ko bàyyi këram kon loolu lépp dafay confirmer que ne moom euh, li nga xam ne tëral nañ ko respecté wuñ ko en même temps vingt bi nga xam ne daf ko waroon a fekk këram fekk ko fa kon jàpp naa ne ak loo mënti doon donte da ngaa jiite benn fondation ak kilifa goo mënti nekk jaadu na li nga xam ne moom tëral nañ ko fi nga def ko fii waaye tamit tëreewul ne may ko nañ fa ay jeunes yoo xamante ne ñoom tamit dèjà waroon na leen fekk seen biir kër mais fi ñoom tamit jàpp nañ leen ñu indi leen fo bi nag am na ci ñu bëri ñoo xam ne boo xoolee ci Touba mbedd yi nga xam ne dugg nañ ko muy mbedd guy mbind yi ak mbedd euh, marché Ocass ba si côté jumaay Touba yi loolu yëpp ñu bëri respecté nañ ko mais nag boo demee ci wet gi dafay am ñoo xam ne parfois dañuy nekk naan dañuy féexlu ba ba police yi teg leen loxo te loolu yëpp mën naa ne ñàkk jafe li nga xam ne moom mooy ndigal li ci la bokk kon nag kenn ku si nekk suñu ndek nañ gën a sàmmonteeg ndigal yi gën a sàmmonteeg li nga xam ne rek moom moom ñi yëngu ci wàllu ko wér gi ngi koy digle ñu gën koo mën a jëfe jàpp naa loolu lépp dina bokk ci li nga xam ne rek mën naa ne euh, day euh, gën a xee euh, bokk di xeex doomu jàngoro ji di Covid 19 kon xam naa ñu ngi leen di jox dig daje ci seen beneen yoon ci ndax comme jàpp nañ ne li nga xam ne rek moom moo di couvre-feu bi chaque jour rek dañ koy ànd ak yéen muy ay journaliste ba ci di ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy way takk der yi lépp rek ngir xeex doomu jàngoro bi kon nag ñu topp seen site internet bi di 24 actu ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon